وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبار ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقناهم تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البر ربنا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سار ci di Serigne Ousmane Dieye bokk ci waa Nuuru Daara bi nga xam ne ñooy amal bis bi tey fii ci bërëb bi di cité douane xanaa jëru ñu di ko laaj rek taxawaay bi nga xam ne am nañu ko tey si bis bi ak euh, liggéey bi kañ ngeen ko tàmbali beeg si fii ak ñi nga xam ne seen mbokki taal bi nga xam ne féete nañ fii ci gox bi ci waa fédération bi nga xam ne wala jokkoo bi nga xam ne mooy xadaayul fadaay li nga xam ne mu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi ngeen tëralee liggéey bi ba si fii tey si bis bi ak euh, wàllum jàng alxuraan beeg njàngum xasida yi ak waxtaan yi fi nar a ak lépp rek nan ngeen ko tënkee ba lépp rek jaar yoon amee ko ni ko sëriñ bi bëggee. ñuy ziar mbokk taal bi yëpp di jiital suñu kàddu si rafet lu baax maanaam kàddu yi nga xam ne di nga ko fii te maanaam di doon loo xam ne daan day bokk ci li taaral bis bi kon daanaka bis bi daal bis bu daan def la naka jekk waaye ay cant lañ ko daan def yoo xam ne guddi la na am waaye ndegam sëñ Tuubaa moom ay mbiram day dox. ci saa yi dox day ànd ak jamono itam li nga xam ne daa war ñu di ko def ndax xasida yi ñëpp xam ne ne fi mu ne moom moo moo moo moo taawu jamono moo téye jamono bu du woon ñoom amaana jamono lu bari xew na fi moo tax suñu jubluwaay yëpp ñu jël ko def ko ci xasida yi naka jekk si la nekkoon sax waaye ñu fas yéene def li nga xam ne bis bi ñu daan def ni ko ñëpp di defee mi nga xam ne mooy bisub xasida boo xam ne day tàmbali ci suba si jëm ci guddi gi ba ñu waxtaanee nag ci loolu nag ànd koog ñi nga xam ne ñooy waa jokkoo bi ak yeneen daar ju mel ne nuuru daareen bii na xam nekk cité Nations Unies xam ne ñoo bokk gox bi ñu ko ak ñoom bañ tàmbalee ca booba ba léegi ñu ngi ciy dox daanaka booba ah, at mee ñu weesu muy 2021 ba léegi ñi si nekkoon di dox dox ay jéego waaye bu ñëwee tey ba si bis bi daa am programme boo xam ne tëral nañ ko si ngir mën a doxal li nga xam ne mooy bis bi ñu tàmbalee mooy alxuraan woo xam ne tàmbale woon nañ ko ci daanaka mën na weer fi mu ne di ko jox daara yi ñu di ko jàng daanaka liñ ci amu ci kaamil bari na lool doon ay lim yu takku waaw weesu weesu na weesu na weesu na cinquante jëm kaw waaw xasida yi itam ñu tàmbalee ko noonu itam di ko def waaye bi ñëwee ba si bis bi tamit moom lañ ko tijjeewaat tijjeewaat ko alxuraan te suba 9h gars yi tàmbale nañ liñ defee misam suba pare wala tàmbale nañ jàng alxuraan bi di jàng boobaak léegi xaside yi waaye am na itam ay kuréel yoo xam ne ak ay rayes itam jar na fi am lu mel lu mel lu mel ne si Moussa Mbacke na xam ne ñëpp xam nañ ko si njaalu njàngu xasida moom itam jàng na fi kuréel bi nga xam ne mooy nu daara leen itam jot nañoo barkeelu waaye dañ koy wéyal noonu ndax am na ay kuréel yu mel ne Hizbut Tarqiyyah Safinatoul Aman di taawu Nasri ak yeneen kuréel yu mag yoo xam ne war nañ fay jàng ci kanam ak reeskat mel suñ boole mbay ak conférence boo xam ne tënk nañ ko si yàq-yàq jamono yi ak solution yi nga xam ne suñ tubaa moom la si indi jaarale ko ci xaside yi loolu daal moo nekkoon bis bi nga xam ne am nañ yéene def ko ngir sant ci sëñ tubaa waaye itam njukkal si maam bépp murit boo xam ne dëkk na ci gox bi waaye njukkal ci itam yëpp jullit boo xam ne nekk njukkal ndax boo gisee fi ñu ko defee dañoo jël jàkk jàkk ji nga xam ne moo nekk Nations Unies xam ne jullit yëpp ko bokk ñu ñëw ne war na ne sëñ Tuubaa kat moom lam doon xeexal mooy li xeexal lislaam gannaaw na xam ne ñun murid yi def nañu ba ñu ba ñu ba ñu mel nañu war a mel xeexal lislaam moo ñu maam xeexal lislaam nga xam ne maam ñi nga xam ne yoo jug di xeexal lislaam ñu ñu taxaw temm ne ñoom loolu li ñu bëgg ndoo fi amee moo a ñu ñëw defee ko ci barab bi si jàkka ji ñu di santal sëñ Tuubaa baax nag ndax ñu ñëwee itam ñoom yombalal nañu ko bu baax a baax a baax boobaag loolu laal boobaag léegi daal loolu laal lañ fi defagum tey ñu ngi ciy santaat Sëriñ Tuubaa baax a baax a baax jërëjëf kon mu mel ni lu ndigal li Sëriñ Muntaxa joxoon daara Hizbut-Tarqiyyah rek ci boole dafa mel ni murit yëpp daanaka dañ ko de dañ ko si daane wuyu si boo xoolee daayira yu bari gox yu bëri bis yu bari ñoom it ñu ngi koy ànd di ko defandoo di barkeelu ci eh, ndigalu sëriñ bi loolu ban gis-gis nga si am ak murit yi niñ ko si wuyusee rek nga xam ne da ko yemale woon sax xëy na si Hizbut-Tarqiyyah waaye soññuwaale si rek nga gis ne murid yëpp dañoo daal di laxasaayu rek daal di ànd ak moom ci ci ci ndigal loolu lan ngay waxaat ci Serigne Mountakha ndigal li nga xam ne jox nañu ko ak dimbali gi nga xam ne koo dimbali te boole ñu ñun ñëpp murid waaw ah, loolu moom li ma ciy wax mooy ni si Mountakha daanaka daa sauvé jamono ndax ñun ñëpp xam na ne xasaay di Serigne Touba ba mu ko moom ko moom moom ko moom ko moom ko taalifee ba noppi jëmale ko ci yonent wi daa nekk loo xam ne moom daanaka mujizaat moo sallallahu alayhi wasallam la waaye itam kawe na lépp lu waaye mosoon a def di ko tagg yonent bi wala nga di ko bind ci xasaayit gannaaw alxuraan ak xadis dara a koo kawe mu doon ja loo xam ne tamit gànnuwaay la boo xam ne day mën a xeex ak li nga xam ne mooy yàqu-yàqu jamono suñ mu taa gannaaw ba mu wootee loolu di si sant sëñ Tuubaa ndax am murit moom amul lu dul maanaam gis ab sëriñam def mu topp ca lool gannaaw gis nañ ko mu def loolu nag amatuñu benn yoon wala benn benn benn benn benn benn xel boo xam ne war nañoo jéggi li sëñ mu dañoo moom daa ñëw ngir wan ñu yoon ndax bi mu toogee ka def na woon ku dem ma dem ku demul ma dem ko ànd ak kuy dem nag te mu doon sa kilifa da ngay xool foo mu jaar nga di fa jaar moo tax ba mu jógee woote bisu xasida kenn sañatul def leen lu dul woote bisu xasida ko ci loolu ngir xam ne barkeel gi mu barkeel moo tax mu def ko kon loolu daal moo amoon loo xam ne kaddu yoo xam ne gis nañ ko si te mu doon itam njëriñu jaam ñëpp ndax ñun ñëpp xam ne xasida fu ñu ko yëkkatee waxuma ne ñëw ñu ko yëkkati waaye gox ba nga dëkk ñëpp da leen di aar da leen di defal teraanga da leen di yëkkati da leen di musal ci lépp loo xam ne maam yàqu-yàqu jamono la ak i lor kon santaat nañ Sëriñ Muntaxa bu baax a baax a baax ko ñaanal mu yàgg fi lool fekk fu fekk ay at yu bari bari bari te ànd ak wér barke borom kon bisimilah barke kon euh, daanaka rek dañuy fas yéene wax ci li nga xamante ne mooy bés bi nga bésu xas bi nga xam ne mboolem mbokk taalibe yi ñëw nañu ànd koog ñun ñu leen ciy sant itam di leen gërëm muy daayira Nour Daarayni Cité Douane ànd koog daayira Nour Daarayni Cambérène cant gi am nag tàmbali waaye amul fu mu yem ak euh, mboolem daayira yi nekk si xadaayixul fadaayil bi nga xamante ne mooy fédération bi lëkkale mboolem daayira yi nekk si zone bi amuñu seen sant seen seen seenu pay dañ leen di sant rek tey ñaan sëriñ mu fayal ñu leen gis taxawaay bi teyit it euh, ñoo ngi ñaan Cheikhul Khadim benn bu ci waay def ak lépp lu ci waaye def yool bi ñu boole ko boole ko mboolem murid yi euh, sotti ko mboolem xewal ci ci mboolem murid yi mboolem jullit yi nekk si àdduna ñu ngi sant bu baax a baax a baax tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah soxna yi nga xam ne ñoo amal bis bi fii si di waa Nuuru ni xanaa ñu leen di laaj rek bis bi ñoom ban taxawaay lañ ci am ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite wàllu culturel fii si base bi waaye it am na ñeneen soxna yoo xam ne ñu ngi si yeneen fànn yu wute xanaa di leen laaj rek bis bi ban taxawaay ngeen ci am ak euh, euh, yan xasida ngeen fi jàng ak yan alxuraan ngeen fi jàng tey. bis bi de <laughs> biñ ko dalee waaj moom sëñ instant bi ñoom def nañ vingt 28 kaamil woo nañ ay daayira ñu jàng fii vingt 28 kaamil après ñoo ngi durus ñun waa culturel am na ay xasida yuñ durus yu bëri bëri na trop sax si ndéedi tuffatu ay wakkaana ay yooyu noonu bëri na daal ak ay salaatul ala bi am na ñoo xamante ne ñoo ngi ci euh, collation am na ñoo xamante ne ñoo ngi organisation am na tamit yeneen soxna yoo xamante ne tamit ñoo ngi cuisine moom kay yaatu na moom alhamdulilah ñoo ngi sant suñu borom bu baax ak sëñ Touba. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñooy ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax jërëjëfe borom jër jërëjëfe borom Touba waaw bés mi tey am na solo lool mu koy sante sëriñ Touba bu baax ànd nañ ko daayira yi ci gox bi yëpp daayira Jokkoom daayira Nations Unies euh, euh, Nour Daara ni Touba Nations Unies ànd nañ ci ñoom ñëpp ànd nañ ci daayira bi. ni ci dox nañ ci taxawaay bu am solo macha allah euh, amuñu seen fay daal ñu leen di sant ba sant yam ñu ngi naan tamit Serigne Touba moom mi yor seen fay mu fayal ñu ko ci barke Serigne Saliou Mbacké kon liñ bëgg ci bés bi yàlla nañ ko am ci barke Cheikhul Khadim waaw ñuy sant bu baax. يا قرادي رد لي الذي ياخذ الاموال مجانا ناجيتك يوما يا برا علي يلوي ذكرا يخجل يا خوتا ومرجانا أنت العلي العظيم الحدل يا أماني أنت الأليم الأليم البر الرحمن عبلي باقد الأسماء قير يا من أمسى يكابده على العق أسمانا إن قدمت الذي آتيته سنا حتى بي قهر الأعداء معنا ملني اليوم يا واب ملباني والفني ñu daje fii ci journée xasida bi nga xam ni waa Nuuru Daara ni Cité Douane ñoo ko amal ànd ko waa Jokkoo bi nga xam ne ñoo féetee fii ci gox bi ñu nekk si waañ bi fekk leen ci liggéey bi ñu taxaw suñu jëwriñ bi nga xam ne moom moo fi teewal waa Jokkoo bi xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo nuyoo te mbokki taalibe yi leeral leen ñoom seen taxawaay ci bis bi nan lañu àndee ak waa Daara ji ak mbokki taalibe yi nga xam ne teew nañ fi ak liggéey waañ bi si nan anam la yoo xam ne noonu lañ ko organisé kon jëwriñ aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziaraat bu baax a baax di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak di leen ziaraat bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek ñun dañuy jokkoo boo xam ne nii daa lëkkale mboolem daara yi nga xam ne nii daa nekk Parcelles Cambérène cité douane cité Aline Sow muy jokkoo xadaayul fadaayili jëwriñ ji di jëwriñ Mbay Wilaan mu jiite ko ñun ñu chargé wàllu communication jokkoo bi tey nag benn cellule ci jokkoo boobu muy nuuru daare ni euh, cité douane ñoo amal journée xasida comme sunu liggéey mooy mbooleem daayira yi ñu sekk liggéey bi yëpp képp koo xam ne nii rek am nga ci bis mbooleem jokkoo bi dañuy ñëw ñun ñëpp taxaw la sa bis boobu ndax ànd boobu rek moom la ñuy sëriñ bi di doyee ndax tur bi rek wuyu na ko muy jokkoo waaye ñun nag ñoo chargé wàllu communication bi waaye tey dañoo nekk ak waa waañ waañ jëwriñ ji di jëwriñ Moussa Cissé waaye taxawaay bi tamit taxawaayu organisation di jëwriñ Iliman Iliman Dioum am na mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ngi ci base ba ñuy waa culturel waaye fii ngeen nekk nii mooy diwaanu waañ bi jëwriñu jokkoo bi di jëm ci wàllu cuisine muy sëñ Moussa Cissé moom moo géré euh, waañ bi ànd ak mbokku taalibe yëpp ñu ànd seeg moom bisimilah. yéen a ñëw tey pour yàlla ñu di gërëm bu baax di leen béral nuyoo bu baax baax a baax waaye di sant waa daayira bi di sunu ah, ñu bokk benn fédération muy daayira pour fa daayili di jokkoo parcelle yàlla dogal ñu ànd ak ñoom ci liggéey àndin àndin bu rafet moo waral lii tey bi ñu xewle wax dëgg yàlla ñu ànd ak yéen ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi. waaw ndax te euh, ñu jox cër boo xamante ni ñun xamuñu cër bi nan lañ koy def ndax lu yem ni cuisine bi nu mu toll ñu ne jox jébbal nañ ko waa jokkoo bi kon loolu wax dëgg yàlla mënuñu am lu gën a loolu loolu du lu muy natable mooy suñu àndin rafet na wax dëgg yàlla ndax ñun ni ñu àndee mooy euh, ànd bi cuisine bi gesto di ñu wax dëgg yàlla ba ñu defaloon benn groupe boo xamante groupe cuisine lañ ndax bi si nii rek moo tax ñu créé ko waaw daayira bi nag dañuy kenn si ci ci ci ci jokkoo bi wax dëgg yàlla ñu am pas-pas lu am taxawaay seen jëwriñ ji wax dëgg doon kenn ci ñun fu ñu mos a nekk rek fekk nañu fa ñoom tamit ñu jëlaat bis bi yaatalaat ko ba tey boo ñëwee fii tey sa yaram day daw ñoom ñu moom daayira bi tey seen yoon laaluñ defuñ dara ñëpp dañoo jël yaatal ko te ñoom mel ni la Sëñ woo woote woon ñoom ñu nga ca muy ak yaatal loolu wax dëgg yàlla rëy na ci ñun moo tax amuñu ci sago ci bis bi wax dëgg yàlla ndax kawe gum kawe suñu mooy nit ñu def moo tax xamuñu nañ leen leen def ci bis bi tey moo tax lépp luñ mën rek dinañ ko ci def ba bés bi jaar yoon ñu leen di sant di leen gërëm bu baax di sant équipe bi ma àndal vraiment fu ma dem rek bu ma gëstoo gis naa leen te ku ne xam ne ndakaaru fii ñëpp dañu nekk ci xinma yi waaye sëñ tubaa dañ ko jël yemuñu ko lenn fu sëñ tubaa soxlaa rek ñëpp tëj nañ seen place ñëw taxaw liggéey bi kon maa ngi leen di gërëm di leen bëral nuyoo di leen sant bu baax baax a baax a baax di leen ñaan yàlla suñu borom dañ ñoo defal jàmm gën ñoo baddil ay xéwal yokk ñu ba ñu yëg ko ndax liggéey sëñ Tuubaa bi képp ku ci nekk suñu borom war na laa mën a yokk nga yokk ba yëg ko wax dëgg yàlla ndax dafa war di ànd ñu jël suñu xéwal di ko ci maa ngi leen sant ndax ñoom xam ñëw fi xam ne ay tuutànt kese ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko seq waaye ak ngëm-ngëm ak bëgg ak bennoo moo tax tey daayira bi yegg bu yegg kon ñun ñu ngi leen ñaanal yàlla suñu borom gën leen téye daq leen seytaane ba fépp kuñ bëgg daayira bi yeggal suñu borom yóbbu leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu ngi mel ñu ngi taxaw ak ñenn si ñoom di sëriñ xaadim jiite daayira Nuuru Daarayni moom sëriñ xaadim rek ñu lay laaj taxawaay bi nga xam ne waa Jokkoo bi am nañ ko seen bis bi ak ni ko jëriñ di leeralee ak ànd bi ngeen xam ne ànd nga ko yow nga jiite daayira Nuuru Daarayni yan kàddu nga siy sànni borom Tuuba su ma ko doy naak baax te ko neexoon ñu mu a siiw ba nekk ci gox bi di Siti Douane ci jokkoo xadaayul fadaayul te comme mbir moom boo ci bokkee te nga xam ni ci da nga cee soobu bu boo amee ak bis da nga koy daal di yaatal ànd koog ñoom looloo waral yaatal gi looloo waral itam ànd bi te mu doon ànd bu rafet itam ñu ànd ko itam beneen daara ju féete ci gox bi tudd daayira Nour daayira ñoom itam surtout Cambérène ak Nations Unies ñoom itam dañoo nekk ci gox bi daanaka bokkuñ ci jokkoor waaye jegante gi jegante gi am tax ñu boole liggéey bi ak ñoom ànd ko ñoom itam ñu wane ci ñoom itam pastef gu am solo lépp sëriñ bi rek tax ndax comme li gaa gars yi waxee de sëriñ bi ak yaatal la woote te moo moo ñu war itam liggéey sëriñ bi mos a xat li sëriñ Sall doon wax rek bu ma fekk lu suñu borom yaatal ma di ko xatal ci ci fànn woowu rek lañ nekk ci di doxee te gis nañ ci seen taxawaay bu baax a baax a baax sant nañ mbooloo mi yëpp bu baax a baax a baax asalaamaaleykum yi ma borom jumaa ji luy nuruloon gaa yi fi des sottil ma sëriñ mi ngir yàlla sarax musulma tëbul ma jomb jeexaloo nattil ma sare neex ga tee nga far mareel wan ma saxar kanam ba far ma muñal sare ju neex ga tee far mareel wan ma saxar kanam ba far ma muñal foo jublu yàlla jublu foo fa mbër ma foo daddu yàlla sotti foo fa mbir ma nangul sama liggéey fo bal nangul ma joxal ma yeneen ba mu jox ko mbër ma su ma naxee tànqal sa ndox mi jar ma te saa su maay bëgg nu jër ma dama dama xon noon nga far mandal ma te géej gi dey tilte nga far mandal ma ndegam dama ayib nga far defar ma sëriñ mi ndegam dama a tooñte nga lay tafarle ma oh dadaaleel ku dey sandarma borom ji maaji kon man nga ma musal ci ak tandarma oh aw ka dadaaleel ku dey sandarma kon man nga ma musal ci ak tàndarma te xawlu naa la gën natal ma la ma wax la ma waxul defal ma xaala seexul xadiimil mbakiyu li xaaliqi tafsiru amadi Diop dagani wala dun seyxi Muhammadu Lamin Diop imaamun jami fi masjidi Jurbel bi asin abiyal borom jumaa ji ne ko alkelkelul yawma mini saarama jooba kar an li taw di li xiili amadan jooba ina بالغابة ثار سابود فلن يسيل لدينا أول ما جوب لكن علمت بأن الله مالك النعمة يريد قاد أمر كان مأجوبا فابلو يا إلهي نيل مطلبي وافتلو كل باب كان مأجوبا yooye béy la defan jox baayam a dummi di ko ci njaareem te soppan daam teeg booba rabbi bi jaay Mustafa wa man duri